maa ngi leen bi nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm ngeen may ma ma jiital ci nuyu bi Sidiki Kaba di nuyu ñi nga xam ni ñun ñoo bokk liggéey bi ñuy de grands commis de l'État moo xam ñi nekk primature fii moo xam ñi nekkoon ak yow ministère de l'intérieur ñii li leen yitteel mooy réew mi li leen yitteel mooy na yëf yi baax xam naa ni xam nga ñii nga xam ni ñu ngi primature fii ñu ci ëpp fii laa leen fekk mais ñu bëgg réew mi lañu ñu mën a liggéey lañu xam naa nit ñi nga ànd ak ministère de l'intérieur ñoom ñu bëgg réew mi lañu ñu mën a liggéey lañu ndax noonu la senegal bindoo mais Sidiki balaa may ñëw ci yow may may ma sant di gërëm président Macky Sall. ndax bu ñu fi dajee tey moom moo tax moom moo ma jël def ma premier ministre ba pare def ma candidat bi nga xam ni. moom la bëgg ma wutu ko kon kooku sant ak delloo ko njukkal lu ma ci def xeeb naa ko ngeen jàppale ma ci nag yéen ñëpp ndokk nag bi mu la tànnee ndax Sidiki da ngay nit ku baax yàlla dafa dogal Sidiki yàlla moo ñu boole bu ngeen di fàttaliku man mii maa ko remplacé ministère des affaires étrangères conseil des ministres yàlla dafa def maak moom rek ñooy dend kooku nag protocole bee ko def mais dama jàpp ni mbiru yàlla moo tax toujours su yónnee ci man dafa may ne où est mon man bu may yónnee ci moom damay ne où est mon waaye nag am na lu doon dox ci diggante bi xam naa ni fan yi dina ko manqué foog foog ma jël samay matukaay pour mën ko jox affaire bi xam naa ni madame Kaba xam na li mu bëgg a wax lan la <laughs> di vraiment nit ku baax ku mën liggéey bi c'est un homme de justice moo tax xëy ne yàlla def ko avocat c'est un homme de conviction ku loyal la envers le président Macky mais surtout ku loyal envers la République moo tax Sidiki maa ngi lay dénk ñii ñii ku ñëw fii nga leen di fekk kuy dem fii nga leen di bàyyi xam naa ni dinañ la liggéeyal lu ëpp liñ ma liggéeyal ndax loolu la réew mi laaj ci jamono jii ñu toll ma lay sant bu baax a baax a baax a baax di sant aussi gouvernement bi yëpp ndax boo nekkee premier ministre yaa njabootee ministre yëpp ñoom ñëpp ñu jël engagement nekk ci sama wet ci ndigalu président Macky Sall jàppale ñu ba lii nga xam ne jot nañ ko cee def du sunu jëmm tax ñu def ko waaye seen xarañte seen bëgg mbir mi dox bokk na ci li ñu may ay résultat kon lii nga xam ne am nañ ko ci yàlla na ci yàlla yàlla na la yàlla may lu ko ci ëpp waaw ndax loo am rek du pour yow pour réew mi la loo am day bëggal président Macky te li bëggal président Macky Sall day yokk réew mi kon Sidiki vraiment maa ngi lay souhaiter la bienvenue j'ai beaucoup d'émotion ndax li ñuy jëm daa gën a metti te tàmbali na depuis démb moo ñu jublu ci campagne électorale am résultat yu mucc ayib war ko yokk muy lu jafe war njaboote ñëpp muy lu jafe mais je sais avec votre sagesse votre soutien mais surtout jàppale ak ñaanu président Macky Sall awma sikki sàkk li tax ñu jóge ci lii jëm ci lële ndam rek lañ ci mën a jëlee ma lay sant bu baax di gërëm vraiment maa ngi lay ñaanal du fond du cœur te xam nga bu ma ko bu ma la ko waxee dëgg la ci man ndax loolu yàlla dogal suñu diggante pour ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay ñi fi toog ak ñi fi toogul ndax amuñu lu ëpp Sénégal amuñu lu gën Sénégal te li war a jiitu ci ñaan mooy jàmm jàmm ju mot sëkk ndax loo xam ne bu yàqoo yaa koy defar walla bu yàqoo doo ci mucc ñaan mu baax ñaan mu gën a baax mooy li lay jariñ li jariñ sa njaboot li jariñ réew mi yëpp Sidiki yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal gouvernement bi yëpp ñun ñëpp ñu nekk ci gouvernement bi nekk ci peggu Macky Sall yàlla ñu yàlla defal jàmm ku ci nekkul it yal na la yàlla may jàmm ndax ñëpp war a am jàmm te ñëpp a xaj ci jàmm may sant ñëpp di leen gërëm wasalaam. bi ñu ma jógee ministère des affaires étrangères moom moo ma fa remplacé léegi moom mooy le premier ministre sortant maa ngi nii di ko remplacer ci station bi nga xam ne moo gën a kawe ci architecture gouvernementale lu mu mën a seede nit ku baax la nit ku woyof la. nit ku woyof la ku juboo ak ñëpp et di respecter ses collaborateurs loolu ñëpp a ko témoigner doo ko déggee ci xuloo ay affaires yu sew te loolu c'est très important loolu mën naa ko seede parce que vivre naa ko ñu bari tamit vivre nañu ko lu tax may téye la constitution du Sénégal ndax dans un pays am na ki nga xam ne moom moo war a garantir le bon fonctionnement des institutions loolu Hadj Mansour yàgg na ko wax le gardien de la constitution mais le gardien de la constitution loolu ci constitution noo ko bindee il faut mu wax leen ko parce que loolu yëpp ça a été écrit dans cette constitution et en lisant la constitution nga xam ne la place et le rôle qui a été donné au président de la république loolu dama leen ko bëgg a liir tuuti pour ngeen gën a xam lan mooy place boobule c'est très important parce que ça permet essentiellement de savoir que si fekkente ne am na difficulté au sein de la constitution loolu il faut ñu xam que le président de la république moom le garant on a dit l'article 42 de suñu constitution ne le président de la république et le gardien de la constitution donc du waxu caaxaan du parce que dañ ko wax pour jéem a alors rafetal c'est parce que dañ ko bindi dans la constitution te moom mi c'est lui qui incarne l'unité nationale moom mooy le garant du fonctionnement régulier mais en même temps moom mooy déterminer la politique de la nation donc loolu mu wone ne c'est que lu ñu mën a def dans le gouvernement c'est de suivre la politique du président de la République Macky loolu topp nga ko président de la République sous le tabé comme le candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar et la la coalition de la majorité présidentielle loolu dafa am sens am na fu mu ko teg wax naa ay qualité yi nga xam ne loolu nga mus wone ci sa liggéey d'abord en tant que fonctionnaire en tant que membre du gouvernement donc surtout aussi en tant que premier ministre fu may jeexalee mooy di président su problème amee day woote looloo tax nitu jàmm la looloo tax mu créer la journée la journée donc euh, national du dialogue loolu il vaut mieux nga woote jàmm plutôt que nga woote masibo parce que te jàmm la lépp xaj masibo kenn xamul fu lu mu war a jur alors donc par que nañu yàlla musal ci loolu nu sommes engagés dans des élections ñu ñaan suñ borom ñu def ko ci jàmm ñu ñaan suñ borom lépp jaar ci jàmm ñu ñaan suñ borom tamit que résultat bi ñuy souhaité suñ coalition résultat boobu lee ñu am ko donc ñu lay souhaité bonne chance dina métti parce que campagne bi commencé na na nga xam ne am nga le soutien du président de la république donc nga am nga le soutien de tout le gouvernement et am nga le soutien de toute la coalition Benno Bokk Yaakaar lu ma ci mën a teg lu ma ci mën a ma ci mën a teg mooy di il faut préciser monsieur le premier ministre en tant que candidat que l'État va prendre les meilleures dispositions pour assurer la sécurité de tous les candidats le DGPN a eu à le dire su ma tuddee le DGPN sama yaram day daw ndax fu ma jógee bi ma duggee yàggul mooy le ministre de l'intérieur nee naa leen ministre bi daf ma jig dama ci dugg rek nekk premier ministre mais déjà